jërë ngeen jëf yéen ñu toog di nu euh, bàyyi xel ci Source A TV ñu ngi leen di nuyu baax di leen siyaar jox seen wàccuwaay ñu ñëw nag euh, ci li gën a fës ci euh, bopp yéenekaay yi dañ koy dooree ak li nga xam ne moom mooy di jour assemblée nationale ak yu nu mel ki nga xam ne nag moom mooy Mawa Ndiaye moom constitutionnaliste la daal dina ci àddu lu yaatu yaatu rek mi ngi ci Source A waaye nag bu demee ci le regard moom nag daa ñëw ci xëtam mu njëkk ni tey saax moom ñu ngi tudd ci scandalu fukki million mu doon loo xam du yéeme yéeme la lépp rek mi ngi ci le euh, regard waaye nag bu demee ci lii quotidien mi ngi xëy fëtal ci xëta RTS kër gu magga déggal euh, ñi nga ni euh, kan moon ana ñi ne woon us ki nga xam ne moom mooy Pape Alé Niang dafa ñëw ngir saboté kër gi le loolu moom dona loo xamit yéeme na loolu daal yéene kaay bi daal di bilal ci ay kadu critique nag daa ñëw ni le comptes de la maison mère vide RTS ba tey foofee la ne waaye nag foofee nga xam ne mooy ci assemblée nationale sommet de revoir baax sa copie loolu nag aussi la euh, yéenekaay bi di critique daal di xëy fësal euh, ci euh, xët mu njëkk mi ngi noonu le point nag daa ñëw nag jox ki nga xam ne moom mooy kaddu sëriñ Bass Abdou Khadre moom nag moom moo jiite moom moo yor lépp lu ñu ci wàllu communication ci yoonu murit moom nag ci CRD bi na amoon le point ni ki nga xam ne moom mooy sëriñ Bass Abdou Khadre mi ngi leeral dëggi-dëggi solo si nga xam ne màggal gi am na ko mi ngi noonu lépp rek mi ngi ci kaay moom daa ñëw ni euh, arme euh, fétiche de Sonko mobilisation dissoudre populaire mi ngi noonu loolu nag la la l'info daa di ñëw xëy fësal nag euh, ci xët mu njëkk l'évidence daa ñëw nag ci ki nga xam ne moom mooy Amadou Ba. ak eh, Abdoulaye Daouda Diallo ni ADD l'autre banni mi ngi noonu kon nag eh, l'évidence yi ni kay loolu la ñëw daal di xëy fésal nag eh, ci xëta mu njëkk l'observateur nag dafa ñëw ci entreprise yi nga xam ni ñi ngi jànkonteel ak ay difficultés yu yéeme yéeme loolu la daal di xëy fésal ci xët mu njëkk l'entreprise en difficulté a ah, l'ampleur du mal loolu nag la l'observateur daal di na xëy fésal moom it ci xëtam mu njëkk mu doon loo xam it euh, ubbil yéenekaay bi bu ko defee di nga ci am lu euh, gën a leer libération nag dafa ñëw ci le groupe Souma euh, mort de la poussière mi ngi noonu mi ngi naan nag guux na poussière ba loolu nag la yéenekaay bi libération daal ñëw xëy fësal ci xëtam mu njëkk le soleil nag dafa ñëw ci la course contre la montre de exploitateurs mi ngi noonu mu mel ne nag ñi xam ni moo jëm ci wàllu campagne deux mille vingt quatre bi jëm ci wàllu mango gile ñu ngi njëkkanteeg heure ba ngir nag exploitation bi mën a tubaarkàl loolu nag la yéene kaay bi daal di wax direct news dafa ñëw ci nag euh, carnage foncier lu jëm ci wàllu suuf la wax ca Mbour carte ne euh, ñet ñi dal la tekk ni ñan ñooy euh, qui sont les hommes à hectare mi ngi noonu les hommes à hectare daal euh, ñoom lay euh, laaj donc nag mi ngi noonu foofee ca Anse Bernard gannaaw fa euh, ki nga xam ne moom mooy premier ministre Ousmane Sonko demee ne moom ko doon fa lu doyo doy waar waaye nag lépp rek mi ngi ci biir yéenekaay bi di direct info léegi fi si bopp yéenekaay yi la ba suba ak jàmm